Forest Sambandé daal jaral na ma lu ne te it su fekkee ni ki am ngeen xalaat muy population bi ñi ma dëkkal ak ñeneen mais xam ngeen ne Moodu lii rek moo ko soxal tudd lii soo taajoon fii ay milliards yi xooluma ko day jeex takk waaye forêt bi bu dëkkee continuer même ma dugg ci biir suuf si yàlla jël may tamit te forêt bi continuer xiw boobu rek doy na ma en 2000 bi ma may départ booba fii yëpp dafa disparu dafa dee dara nekku fi mais ñoom dañu yaakaaroon ne peut-être lii balaa mel ni man danañ ma rey parce que lu góor réy réy réy réy ak noo mën a toll tant que yaa ngi clandestin man dama lay fekki ci biir terrain bi mais pour tey ci biir terrain bi problème bi ne mën na mais ak fii ñu toll nii tey ça fait que deux fi mu nekk nii koo wax ne forêt Tamba ne mu ne ci laa bokk de ñun ñoo ko liggéey mais nag loo gis rek bu taxawee rek day am borom fi mu ne eaux et buy dugg na ma tàggu gan gu ñëw dana ma tàggu. man maa ko aar ba mu mel ni dama doon dem ba dàll yi dagg may fuut ay fil de fer da ci laxas day dem man ci sama wàllu bopp am na benn bis guddi minuit booba feu am na ma génn sama ne gis ko dal di dawali àll bi ci guy yu dagg yi fële bi ma ñëwee heureusement maa ngi fekk benn nag ndeke mu ngi jur safara bi mu ngi bugg a jël doom bi mais noonu daal ñu yanu doom bi yóbbu ko ba fi nga xam ne fii safara nekkatu fa ma teg ko fa te kii li mooy jëriñ bari na parce que même tension yooyu da koy wàcce gis nga ni mu fi ne doom bi yaa ngi gis te dafa neex loo ma woon nag ci garab ak garab bu mu mën a doon ci kër àddina xamal naa ne la mooy jëriñ bu saxee yi tamit bu ëllëg ëllëgee garab boobu mooy sama sama intérêt parce que mag ñi bi ñu fi nekkee bu ñu feebaree ci garab yi bu ñu xiifee ci garab yi te et garab dafa nekk intérêt boo xam ne bii bés bu mu daanoo ci biir Sénégal lu bëri dina yàqu résultat bu rafet say doom duñu rus tang njaboot duñu rus képp ku bokk ak yow tamit day kontaan man lii foofu laa jàpp seetuma ay milliards seetuma leneen sama dund moom sant naa yàlla bu baax moo taxoon tubaab yi tuddee ma le fou de la forêt man sant naa yàlla kontaan naa ci aussi le fou de la forêt <laughs> waaw loolu def nañ ci ay livre yu bëri yoo xam ne yi boobu président France boobu sa xaw ma kan la ci ñoom moo ko validé ah. indi ko fi Sénégal léegi nag defee ñu yëkkati nag école yi de ko ci dugal ne fexe leen mel ni kii boobu laa calculé ma ne ah man nekk ni ma meloon bon kon li may liggéey baax na. visite nag fii ay Canada ay ah, fii euh, Côte d'Ivoire seen photo yi mën naa la ko woon amul Guinée Mali Mauritanie yëpp ñoo nañ fii pour xool àll Sambandé mais ku ñëw da nga naan. naka lañ ko clôturer may na amul clôture amul benn clôture dugg rek dem fu ma fekk koo xam ne kii clandestin dama lay jàpp rapidement amul kenn ku may bàyyi loolu laa ko liggéeyee